Dia Production en collaboration avec Fedor Production ñoo été à Palmaré le 26 27 28 avril lamb nous avons ñu à 1 million 550 mille ak mercredi raw gàddu à ñu de mbëri ak 50 mille jeudi mooy poids léger mille vendredi nous avons poids lourd ya 1 million animation mbayang lum ak kan ñu logo Amat Fay bu magique LEN, Diab ak Fedior Production production lañ bëgg kon a amateur tout droit palmarès le 26 27 28 avril 2023